kon bu ñu amee ay doom ay sët ay jarbaat ay rak mag ak rak ñoom ñëpp seen xel daje ci dañoo war a yokku waaye naka ñu étudier ko jàng ko ba gis ne dañoo war a yokk waaye nañ tàmbalee ci suñu bopp ndax bay ci sawew tànk nañ tàmbalee Mérina parce que Mérina mooy suñu xaayda bu ñu fi tàmbalee ba dëgër li ci des dafay ñëw yomb الشيخ راما دي واحنا واحنا مرينا جي مرينا في با جانجيناو مرينا واحنا مرينا في با جانجيناو تك جسمو في دومو اي اتاجاكي اي تاخيكاو مون غير لا في جيس سون جيسي تامبالي مباي ديجي بوبو كوماسي شي اي نجابوتم شي اي دومم كن يو دفر نيكو مي اي دوم كسي نيو خلال ني من نيو عمل لي نيو تك سين تانك بور عمل كوم دونك دانيو واخ الحمد لله رب العالمين waaye yal na yàlla yokkulu Cheikh Ibrahima kawe ak leer ak ñi àndoon ak moom yëpp di liggéey pour ñu àgg ci résultat bi donc ñu foog ñooñu ñoo jàpp ci ñun ñëpp ñoo ànd liggéey bu boobaa mun nañoo liggéey loo xam ne dafay tolloog baay ci xelaat dafay tolloog bàyyi ci bëgg-bëgg dafay tolloog bàyyi ci volonté dafay tolloog baay ne nii la lañ am nii lañ am ñun tamit donc ñu ngi ñaan bàyyi Cissé ak ñu koy jàppale ñëpp ah yal na yàlla yëkkati. yal nañu yàlla yëkkati. yal nañu yàlla dolli. yal nañu yàlla taxaw. Euh, dëgg la dañuy liggéey te boolewuñ ci publicité quelquefois dañuy am ci suñu bopp rek mais am na jamono yoo xam ne itam publicité daf ci war a bokk ah? pour ñu xam ndax yaa ngi avancé wala avancé wala demuñu ndax yaa ngi dem wala dem wala dem ah. kon quelque fois si yi am yu baax yëpp nañ koy wax nañ koy wone nañ koy wax ci rajo bi hmm. ah parce que lii ku ne xam ne ne développement la développement xam-xam la développement xelaat la développement nit la hmm. parce que lu kawe loolu laa bëgg bëgg naa marché bëgg naa hôpital bëgg naa jumaa bëgg naa tali bëgg naa kër yu baax yu dëppook nit ñi bëgg naa ay gan yi ñëw ci man bu ñëwee fekk fi loo xam ne jar nañoo gane si loolu yëpp bëgg nañ ko am mooy développement loolu mooy nit te si si ci la bokk macha allah alhamdulilah yal na yàlla yokk la yàlla yokk la dëgër ak ak mën ak sa loxo bu tàlli loo xëcc rek yal na ko ah, ah, ah jàpp ah, indi ko yal na yàlla defal loolu ak ñi leen di dimbale yéen ñëpp ñu ngi xaar itam ci génération bii toog ñu xool ne modèle a ngi nii pour ñoom ah modèle dañoo bëgg a tabax bëgguñu fee nekk di ŋaayoo ko xuloo ko xëccanteek ak yooyu passé nañ ko dañoo bëgg a demaat beneen pas beneen pas boo xam ne mooy dañuy defar dañuy tabax dañuy yëkkati. bi ngay tàmbali sa fële. mos naa laa wax ne. yàlla na pare ma fekkee ko ndax ñu bokk ci ñu koy sanc. alhamdulilah alhamdulilah pare na. <laughs> bokk naa ci ñu ko sanc. macha allah maa ngi yaakaar itam bii itam incha allah. balaa yàgg ñu ànd man ak yow ak ñëpp. ñu dem sanc ko. yàlla nañu yàlla defal loolu. modèle a ngi nii bu ngeen di ut modèle ut benn modèle. Hmm. modèle buy tabax te du ko booleeg wax. Hmm. ah mo modèle buy yëkkati modèle buy defar moom lañ soxla. Eh, tey dañ ma fi owoon xalif bi daf ma owoon gannaaw. bu déclarer déclaré woon ci ne daf ma bëgg dënk dénk lépp loo xam grand travaux medina Baye la ak fayda bi romb romb na medina bay am nañ projet yo xamné ni romb na medina bay ci Dakar ak yeneen dëkk ko seeg fenen ak fenen mais loolu yëpp lañ lañuy dajalé né ne man lañ ko dënk donc tay ñu ñëwoon gannaaw bu mu waxee loolu ci gàmm gi ma liggéey ci tuuti ci projet ñewté nak présenté ko ko mu tombeek aussi mu ma don jox décret bi donc lolu mo nékkon événement bi donc tay mu jox ma euh, lettre bi ma nommé bi comme euh, responsable des grands travaux ensuite ñu présenté ko projet yi nga xamné yaakar nañ né baxna pour medina Baye et que day tax medina Baye soppeeku xar xar kanamam mu nekk dëkk bu bess donc ñu présenter ko projet yi mooy hôpital bu de niveau 4 moi université bu bees boo xam ni day jokkook université yu mag yi nekk ci comme ay Nous ak yooyu ñu marché bu bees boo xam d'envergure internationale la boo xam ne nii ah, day ak parking boo xam ne ñiy gàmm su jóge ay par bus et yoyu. suñu ñëwee fa la ñuy taxaw donc pour désengorger un peu Medina Baye ci période de yeeg bon donc Rudy, euh, Rudi tali yi ak yenn infrastructure yooyu yëpp yi ñu fi war a def lañ ko présenté euh, image à l'appui Il y a une autre pour wan ko ne infrastructure il lañ fi bëgg donc très bientôt euh, ñu commencé liggéeyu. Esplanade fini ñuy ndax xam ngeen à partir de année prochaine je pense pendant les cinq années qui suivent yep, gàmm ci bir nawet lay nek kon nak ñu bu wara a commencé jël suñu matuway ba nga xamné ni tamit su su tax dinañ mëna a donc lool motax ñu wara mëna mën euh bu njëkk bobu pour que fi ak euh, gàmmu dewen bu soobee yalla ñu mëna wara mëna présenter dara gouvernement ou président de la république aussi mi ngi fi bo xamni duñu sétane duñu ñu parce que président ci bopam joxna ma accordam né projet Medina yépp dina ko accompagner waaw kon nak su euh amuñ ci siiki sakane d'abord moy moy suñu premier contributeur moma gouvernement am nga donc mo ko xamni ne nii cité religieuse yi daf ci yàgg taxaw yag len jàppale yag len dimbale ko voilà kon nak su fekkee ne ñun ñu ngi def lu toll nii xam naa ne moo ciy jiitu donc li ci des moom mooy xam nga ne fii ba Nigeria ba Ghana ba États-Unis ba Amérique ba fu nekk lii bis bu ñu ko lancé talibi bàyyi duñ des gannaaw waaw kon nag euh, li am ci yeneen confrérie yeeg yooyu rek moo fi am voilà donc pour financement beeg yooyu maa fi muskila mhm. voilà alhamdulilah